إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكني دغلو في تي سن تلفزيون سفينة تي في سن بكو سن خيط الحاجي أساس عبد الله نجاي ديل سواتنا بنان تي وقت وي فسيني فاتلي كونتيجين سن إميسيون بيغا خمني مودي جار جاري يونتي عليه الصلاة والسلام di sant sunu borom subhanahu wa di ñaan borom bi defal na tawfiix ak taysiir eh, di nuyu tabarakallahu borom kër gi Cerno Hamidou Yaraban di ko ziyaara eh, di nuyu itam tabarakallahu mboolem daara yi dëkkandoo jàmm ca gën di nuyu it fa tabarakallahu sunu xarit sunu soppe ajaratu naar saw fële ca cité enseignant Eh, di ko ziyaara waaye tam di nuyu Adja Kumba Wali Diagne fële ca tabarakallahu amoo si de tabarakallahu Sacré-Cœur 3 VDN di nuyu soxna Khady Fall fële amoo cinq ak Adjatu Adam Dieng ñu yóbbaale mbokki daara yëpp nuyu itam tabarakallahu sunu ndayu daara fële Kër Massar di ajaratu Umu Xayri Saw di nuyu mbokk yëpp di ziara mbokk yëpp bàyyi wunu kenn fa tabarakallah mu mel ni kon xisasul anbiya dafa ñëw tey nag waxtaane kii ñuy wax Adama alayhi salaam xam nga Adama alayhi salaam dan wax ni fii bidayati haazal kawni kaana allahu waxda la shay'a ma allah kon fa huwa al awal allazi laysa qablahu shay ñu ni kon ci ndortel àdduna amul lenn loo xam ne lu fi nekkoon la lu dul sunu borom subhanahu wa taala kenn nekkandoo fi woon ak moom kudul moom waaye nag ci nekkee moom boobu nga xam ne ci la nekk ci la organiser àddunaam lu ci nekk la war am mu amal ko lam fa def mu defal ko mu def ko moo xam ci asamaan la moo xam ci suuf la moo xam fu man di doon lam fa def mu def ko fa mu nekk di mbir mu kéemaane waaye xam ngeen ni xalaqa Adam alayhi salaam summa shaa allahu azza wa jalla an Adam wa zuriyatuhu li yaskunu al arda wa yaamuruha nee na dafa soob sunu borom subhanahu wa mu bind kii ñuy wax aadam waaye itam bind itam ay sët yu soqi ko ci aadama alayhi salaam ngir ñu dëkkee ci kaw suuf bi maanaa dundal suuf bi mu nammee loolu moom sunu borom subhanahu wa ci la xibaar malaaka yi wan leen ni moom kat bëgg naa bind beneen bindaafon boo xam ni ñoom ñooy dox ci kaw suuf di dund ci kaw suuf tasaaroo ci kaw suuf bi mu waxee lool nag xam nga malaake yi ñoom comme dafa am lu nu miinoon dafa am lu nu gendeeku woon ndax am na ay bindaafan yu fi nekkoon yoo xamante ni ay jinne lañu di aw xeet woo xam ni yàq ak tuur deret la nekkoon ci kaw suuf ñu tontu sunu borom ni ko atajaalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dima ila axiril aya waaw ndax yow sunu borom ndax dëgg bëgg bind ñoo xam ne wàcceen ci kaw suuf ñu di fa yàq ak di fa tuur deret ak di fa def ak di fa wax naka su dul noonu sunu boroom subhanahu wa xamal malaakay yi ni leen inni aalamu maa laa xam naa lu ngeen xamul ndekete woo booba mbokk yi nar naa soqi ko ci aadam ak ci ay sëti aadam koo xam ni mooy sangub àdduna te moo di yent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax du jinne du malaaka waaye nit la comme ñun moo tax ñu ne kon fa lama aqbarahum allahu azza wa jalla annahu sa yaqluqu xalqan xayrahum xaafuu an yakunu an yakuna zalika li taqsir waqaa minhum aw li muxaalafati kaanat min ahadihim léegi fa asra'u ila tabarruati anfusihim wa qaalu كيف تخلق خيرنا ونحن دائبون على التسبيح بحمدك وتقديس اسمك على أن هؤلاء الذين تستخلفهم في الأرض لا بد أن يختلفوا على ما فيها من منافع ويتجاسبوا ما بها من خيرات فيفسدوا فيها ويسفك الدماء ما tax ba leen sunu borom xabalee ni leen bëgg naa bëgg bind bëgg naa bind ñeneen ñoo xam ni dañuy nekk ci kaw suuf ñoom ñu am ak tiitaange ak ragal yaakaar ni ñooñu dañuy wàññi seen dayo seen diggante ak seen borom subhanahu wa ñu ni ko ndax da bind ñeneen ñu bokkul ak ñun te ñun ñu ngi sax ci di la sàbbal ñu ngi sax ci di la sant ñi ngi sax ci di sellal di maggal sa turwi te ñoom bo leen wacce ci kaw suuf munta ñàkk moos ñu wuute ci ay njariñ ci xëccoo ci tuur deret ci def naka sulul noonu e ci leen sunu borom subhanahu wa taala wax ni eh, ci leen ñom malaaka yi da wax ni ci teunk bu gat atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima ngir lan li annahum ra'u ma fa'alahu al jinnu xabla an yaxlaqa aadam min al ifsaad wa safaki dima boo gisee malaaka yi am sañ-sañ boobu wax ko seen borom ñoom danoo gis ni am na ay jinne yi fi nekkoon laatay aadam waaye dañ fee nekk woon tuur deret waaye dañ fee nekk woon ak yàq gu rëy moo tax eh, fa tabaarakallaahu ñu waxee noonu waaye sunu borom moom xakim la namm namam ak xereñam ah tabaarakallaahu kawe na lool te itam li mu namm rek loolu mooy am moo tax abdullah ibn omar radiallahu anhu wax ni kaanatil jinnu qabla aadam bi alfai aamin maanaam fa safaku dima fa baasa allahu ilayhim jundan min almalaikati fa taraduhum ila jazaa'il albuxur kon abdullah moomu bunu amrin radiallahu anhu dafa wax ni jinne yi nekkoon nan fi lu jiitu aadama ñaari junni at wala boog junni at ay junni at waaye di tuur deret rek ci lool nag ci la yàlla yónni ci ñoom yabal ci ñoom ay soldaar yoo xam ne ay malaaka ñu dàq leen génne leen kaw suuf ndax yàq gu metti gi doon yàq ci kaw suuf waaye gis nga sunu borom ba ko malaaka yi waxee loolu daf leen wax ni inni alamu ma la taalamuun inni alamu ma la taalamuuna bi maanaam xam naa lu ngeen xamul ay alama min al maslaha arrajiha fi xalqi haula ma la taalamuun ay sa yujadu minhum al anbiya wal mursaluun wa siddiquun wa shuhada wa saalixuun sunu borom xamal na leen ni leen ñii ngeen sajj xef ba ndax danga nga bëgg a bind ñoo xamante ni bu nu fi ñëwee tur deret ak yàq lañu fiy nekke xam naa ci ñoom loo xam ne yéen xam leen ko ci ñoom ndax dana bàyyi ci ñoom ñoo ñu ngeen di wax ñoo xam ne ay yenent dana bàyyi ko ci ñoom ñoo xam ne yàlla moo di yónni dana bàyyi ci ñoom dana bàyyi ko ci ñoom ñu dëggu waaye dana bàyyi ko ci ñoom ñu sell ñu yiw mbokk yi comme nag suñu borom wax na ak ñoom loolu ñoom li leen war mooy déglu ak xaar fan la sunu borom di mujj ak nan lay doxale moo tax ñu ni kon wa kaana bidaayatu xalqi aadama alayhi salaam min aturaab benn aadama alayhi salaam ci ni ko sunu borom binde du dara lu dul suuf kon yàlla nga ko binde ci suuf waaw ci yaa suuf la ko sunu borom bindee moo tax wala qad axbaranaa allahu jalla wa ala bi haasihi alxaqiqa fi kitaabihi fa qaal inna masala isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turaabin summa qaala lahu kun fa yakun loolu mooy firndeel ni njëlbeenu aadam ni ko yàlla binde suuf la moo tax ma ne ci alxuraan misaalum Isaa daal fa yàlla bu leen jaaxal mi ngi mel ne misaalum aadam rek ne ko yàlla bindee ci suuf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.